si Chérif dérange il va déranger toujours pour toujours pour toujours il, euh, éternellement je ne suis pas éternel Dieu est éternel et unique mais quand tu es avec Dieu tu es éternel xam nga dégg ngeen tubaab wala déet man man damay dee incha allah ah wóoraguma de ñaan naa yàlla bokk ci fi waliyu xadir bokk ak Cheikh Alhaji Omar yàllaa koy maye rek bu ma ko mayee ma jël de waaw yawma yunfaxu fi suur fa safixa fa saxiqa man fi samawati wa man fi ard illa man sha allah waaw ku naan ci maawul xayaat rek doo dee waliyu xadir ci la naan Cheikh Alhaji Omar ci la naan ci ñuy dund nag ñoon ñooñ lañ ci xamandi waxuñu ne ci ñoom rek lay yem ndax yàlla kenn du ko limité faalun lima yurid ñooñu sax bu ñu xëy bu ko neexoon mu xëy rey leen laa yusalu amma yafaal wa hum yusalun kenn du ko laaj pour pourquoi moom yàlla moom moo ñuy laaj pour pourquoi laa yusalu amma yafaal wa hum yusalun gis nga yàlla ku ko xam rek nekk nit waaye ku ko réere rek di dof pouvoiru yàlla kenn yegsi wu ci xatta rasulullahi yegsi wu ci billaahi walkitaabi doole yàlla rasulullahi sax yeggu fa rasulullah mbindeef la comme ñun yàlla gënale ko ci mbindeef yëpp yàlla mi ko defal loolu yàllaa ko gën yonent bi du yàlla <laughs> ñun xam nañ ko bu baax yonent bi du yàlla yonent la mbindeef la bu yàlla gënale ci ñépp ak lépp lu mbind waaye du yàlla nag yàlla rek kay yàlla huwa allahu ahad samat lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad loolu foog mu leer waaw buñ nee yonent bi nag du yàlla keneen waxe noppi waaw keneen waxe noppi épargné wu ma kenn nit nag ñépp a ngi ci biir ku yàlla bind rek yaa ngi ci biir yàlla rek ay yàlla nañ bàyyi yàlla ak yàlla am ji nekk yàlla sax xamoo dafa métti ñépp di la saaga yàlla jàmm di <laughs> waaye ñàkk jàmm moom coobareem la yàlla sax amul jàmm taw bii rek nit ñaa ngi nekk fii di jàmbat xoolal bu tawut ñëpp naan na taw na taw yàlla mbay ñu ndox ñuy baaw naan guddeeg bëccëg bu tawee ñu naan woo inondation yi nangam nangam bu seddee ñu ne ëpp na bu tàngee ñu ne ëpp na ñun kenn xamut luñ bëgg te yàlla ngi koy accepté bàyyi ñoog suñu di te xam ne dañoo di rek mu jàppee ñu suñu matadi di ñu jéggal lii ku ko xam rek noppalu nekk yàlla neexut ndem <laughs> nekk boroom kër rek daaw da ni métti kon boo fi bëggee nekk yàlla àddina àddina tukki kuñ doon dundalal Sénégal rek tey léegi nga dee ah Sénégal rek bu ñu la waxoon dundal yoral dund Sénégal léegi tey sa àddina tukki loo bari bari milliards léegi nga jeexal kenn ku ne ñu ne la yaa yor dundam Sénégal yépp loo bari bari milliards léegi nga jeexal te yàlla jeexalul dara wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi kulla yawmin huwa fi sha'nin koo koy yàlla moo tax mag ñépp a ko xam eh, moo tax ma bëgg a def dama am njuumte bu ma def njuumtey wax la waaye du ñàkk xam man li may xam maîtrise li may wax dama ko maîtriser alhamdulillah fa lillahi alhamdu wa sukr mag ñi ma ko nettali te ñooñu kenn rawu ci réew mi ñépp a leen xam maa ngi koy wax sëñ Daawuda bii démb ma ne ko alhamdulilah waxtaanu sëñ Mansour bi li ma ci gën a neex li may wax yëpp ñi ma fas yéene cité ñi ci ëpp ñu ngi dund te wax di site kuy dund moo gën a neex di wax site ku génn àddina ndax dañ naan day day sóobu rek kooku ku ko mën a laaj waaye li may fas yéene wax nag ci borom daara ji ku ko weddi nga laaj ñi may tudd am na wala amul te bu ci tayal loolu laa ci jublu toujours damay wax ne kuy waxtaan ci sa kilifa bul def waxtaanu dof waxtaanu dof mooy naan mbam mu yéegee asamaan xëcc juróomi bidiw mu daanu loolu concerné wuñu ni nekkee woon ak ñun ba dundam rafet yàlla gërëm ko ñun loolu lañ soxla ci moom mu jubook yàlla jubóog mbindee fi yàlla yi ndax ñun suñu àddina mën a baax suñu àllaaxira mën a baax moom borom daara ji li mu ko daan waxee bien fii bien fële mu ne mooy rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina adhaban naar sëriñ loolu rek lañ koy doyee boo amatul loolu ci sa sëriñ booyee boo ko kon li ma fi waxoon muy njuumte mooy cheikhul xaaji malik euh, ki ko jullee waxoon naa ko mooy maam moor xujje si Maodo amul ko mbokkal ndey ak baay loolu àddina bi yëpp xam nañ ko Seydi Hadji ñetti mag ñaari mag la am moom moo leen ñetteel Fanta Ñang ak Abdou Boli Fall Fanta Ñang mooy taawu maam faa wadd wele yàlla weddi mooy mu borom këram boobu génn àddina ñu dënk ko góor ga Fall mu am ci Abdou Boli Fall kooka génn àddina ñu door ko jox maam Ousmane mu am ci Seydil Hadji Malick génn àddina Maodo ñaar ñaar la bokkal ñaari nit la Maodo bokkal ndey muy Fanta Ñang ak Abdou Booli Fall Maodo amul ko mbokkal ndey ak baay loolu àddina bi yépp xam nañ góor gi moor xujje si nag moo jur góor bi ngeen xam jarbaatu Alaaji Abdul Aziz góor ci mag ñi la bokk de moo tax ci Tiwaawan ñii di ko wax bàyyi ñii di ko wax maam bi xalifa yii sax bàyyi lañ koy wax parce que bàyyam mag la góor gi Mor Xujje si dégg ko góor gi Mor Xujje si nag moo jullee Seydul Xaaji Malik moo jàngal Sëriñ kër si alquran Ousmane moo jur Maodo Ahmadu moo jur Mor Xujja waaw kañ Ahmadu mi jur Mor Xujja ak Ousmane mi jur maam Seydi Xaaji Malik ñoo bokk ndey ak baay du noonu la ahmadu mooy jur moor xujja si usmaan mooy jur seydi xaaji malik ahmadu moomu nag ak moor xujja ak ak usmaan ñoo bokk ndey ak baay góor gi moor xujja si nag mooy jur góor si ak ak soxna suñuy wax soxna nafi ñang nafi si nafisatu si moo mag cheikhul xaaj abdul aziz soxna nafi mooy yaayu soxna yaayu góor a si Moustapha Moustapha si mii jarbaatu Alaaji la waaye bàyyi la ci Alaaji Abdu moom góor bàyyi la ci moom waaye jarbaat la ci moom ci wàllu baayam baayam la ci wàllu ndeyam jarbaatam la mbokk Tiwaawan mbokk gi dafa rabbaski dafa rabbaski ñoom ni yonent bi doon dencee ñoon la ñuy dencee ci seen biir xaraamul nag dagan na am na ko ma ko doon laaj mu ne ma waaye dafa jege mooy waral ma ne ko mooy waral loolu beneen domaine la dagan na daganut rek la ñuy wax waaw dagan na waaye sàngi nag deret yi dañ jege loolu concerné wu ñu mu ne ma mooy indi affaire wu ni nga koy waxeeti drépanocytose SS ak yooyu ma ne bu yeboo muy SSSZ loolu concerné wu ma dagan na la ñuy wax ak daganut loola nag feebar la ay ss ak yooyu feebar la concerné wu ma da li ma concerné daal mooy dagan nag xaraam na comme dagan na nag bien la ca des nag toppatoowu ma ko loolu feebar la feebar ñépp koy am man dañ yebu ci sama mbojj rek waaw lii lu fi jar commenté li ci des yëpp li ma wax yëpp deux heures et quelque amoo loo ciy commenté lu dul góor gi Mor xojja si ak Seydi Aj Malik ñàkk fayda rek nit ñi dañ doyee di rek dañ doyee di nañ nañ nañ seeti leneen man mënuñ maa ji incha allah te mag ñi jaral nañ ma lu ne ndax ñoo fi nekk nag ñi fi des yëpp lekkum banaana rek ak pom ci ñi ma ko war a wax du ñëpp nag bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër waaye population bu dee quatorze million ña ci ragal yàlla xaqiqatan mënuñ lekk fukki kilo ceeb kon booy wax ñëpp ngay généraliser te génn naa ci yàlla réew mi ñi fi ragal yàlla xaqatu qaatihi mënuñu lekk ñetti kilo ceeb wa taqullaaha xaqatu qaatihi ñi ko fi am matuñ mënuñu lekk fukki kilo ceeb buñ ko tiimee du jeex mastataa yi rek ñoo fi ëpp sama kalaas gi wa taqullaaha mastataatum mag ñii may wax nag xaqatu qaatihi ja ca lañ yéeg loolu laa ci jublu daaw ñii ma fi waxtaanee ci xaqatu xaatija lañ yéeg ñun ñi fi desandi nag ñoo ñooy raam ci mastataatum ji rek ah, te boobu it baax na nag wa taqullaa mastataatum ah boobu baax na su ko defee loolu laa ci doon leeral góor gi Mor Xujja Si nag kenn amul werante moo jullee Cheikhul Xaaji Malik loolu moom amul benn werante moo ko jullee biñ tegee Maodo fekk sëñ baabakër a ngi waaj pour génn duñ tudd turam xam nañu ko am góor gu génn taxaw ne defar leen sàppe yi ci muqaddam yi la bokkoon defar leen sàppe yi ñuy defar sëñ Babacar dégg ñuy defar sàppe yi mu ne lool lan la mu ne ko sëlmalal te génn ci ak sàppe yi boo ko jullee woon du la raw yow da nga am dara jaay jullee Maodo daal naa ne góor gi mor xojja si mu ne maa ngi mu ne ko kaay jullee ko te sëñ Babacar rek mënoon na ko julle waaye lu tax mu taamu ci góor gi mu roxo jësi deret ja ragal yàlla ja martaba ba moo tax mu jox ko ci al aqrabu awla ki gën a jege moo gën a yeey fa tabaarakallaahu loolu yëpp dina feeñ ci biir waxtaan wi incha allah kon